wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli mbokk téléspectateur Prestige Thiès ñu ngi mus ñu ngi mustu ci seytaane suñu noon bu mag boobu di tàmbali suñu wax ci turu borom bi subhanahu wa taala borom kàttan borom mën borom xéewal moom mu ñu xéewale woon ñuy fekkee at yee euh, weeru la awal bi nga xam ne si la Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam gane àddina mu may mu mayaat ñu ñu fekkee ko ren ñu koy ñaan mu may ñu ñu fekke ko tamit ay at ci kanam ak kanam yépp ànd ak wér ak mën ak tal ak fekke ñu ngi julli ci sangu-sang yi seydinaa muhammad sallallahu alayhi wa sallam suñu roykaay bi yàlla subhanahu wa teg suñu kanam ñu ngi koy ñaanal di ñaanal ay saxaabaam àndandoom yépp góor ñi ak jigéen ñi di ñaanal yàlla suñu waayu dawli yi yàlla teeru leen malaan yéen mànde di ñaanal suñu malaat yi ña kër yaak ñetti ca yi yàlla saafara leen di ni Eh, ñoo feebar ci mbas mi yàlla yëkkati leen bañ a tëralaat kenn nag mu yemale ko fi mu yem ñi jot a am wér ñi amul yàlla bu ñu am ñu ñaan yàlla suñu kër gii di prestige yàlla jëmale ko ca kanam yóbbu ko ba mu yegg fu romb suñu njot yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def di nuyu nag bépp téléspectateur boo xam ne yaa ngi seetaan jotaay diine seen émission boobu di leen ñaanal bépp xéewal bu am yàlla nañ ko bokk ñun ñëpp kon ñu fi woon ci semaine yi passé doon wax ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sangu-sang yi indi woon fi ay jikkoom yoo xamante ni képp kenn ci ñun war na nekk jikko yoo xam ne danga koy jël roy ko ci moom jikko yi mu ñaawlu woon ba wax ni mu moytu leen jikko yii ñuy bëgg ñun ñëpp ñun jullit man mi di wax ak yéen ñii seetaan ñëpp ñu bokk moytu jikko yooyu yàlla nañ ko yàlla defaral waaye li tubaab di naan euh, derrière tout grand homme une grande dame loolu nag lañu bëgg a ñëw ci daam grande dame boobu di suñu yaay Khadija mi nga xamante ni soxna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la woon tey jii moom lañu bëgg a indi wax ci moom ba képp kenn ci jigéenu boo xamante ni jigéenu jullit nga nga xam ni am nga yowit royukaay ndax ñun am nañu ay royukaay ñun jigéen ñi am nañu jigéenu jullit yoo xamante ni suñ ko tegee suñu suñ leen tegee suñu kanam rek dinañ xam ni ñuy doxalee ci suñu àddina dinañ xam ni ñuy doxalee suñu biir kër suñu digganteeg suñu borom kër dinañ xam ni ñuy doxalee suñu njaboot dinañ xam naka la ñuy nekkee ci àddina bi dund fi dund goo xamante ni gu teey lay doon ba pare am euh, may xéewalu yàlla euh, ëllëg loolu bu ñu jëlee yenn jigéen ñoo xam ne dañ koy teg suñu kanam rek dinañ ko xam kon kiñ ci jiital ci ñoom tey ki ñu bëgg a wax ci moom mooy suñu yaay Khadija suñu yaay Xadija mooy première soxna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekkoon nag soxna soo xamante ni ku jàppale yonent bi sallallahu alayhi ci côté yépp la jàppale na ko ci alalam jàppale na ko ci mën-mënam jàppale na ko ci xalaatam jàppale na ko ci ci ci euh, dalal jàppale na ko ci lépp côté yépp daf ko ko jàppale moom moom suñu yaay Xadija moo tax it yàlla defal na ko ay xéwal yoo xamante ni euh, jigéen ju nekk ñaanoon nga yàlla am loolu mom suñu yaay khadija avant mu ñëw ci yaronte bi sallalahu alayhi wasallam fekkon na mu amoon ñaari sëy lu jitu lool ba am ci ñetti doom mage won yaronte bi sallalahu alayhi wasallam 15 ans ndax bi mi am 40 ans yaronte bi sallalahu alayhi wasallam mi ngi am 25 ans ci la dugg le ko jël soxna yamu jaar yépp ba mu jël ko soxna du ñu insisté ci lépp mais dinañ wax rek ni jikko ju rafet gi mu gisoon ci yaronte bi sallalahu alayhi wasallam manuté gi mu gisoon ci yaronte bi sallalahu alayhi wasallam ndax daf ko doon jaayal employé am la woon mu koy jox ay marchandises mu yóbbu di jaay mu koy dénk xaalisam aussi mu ko koy dencal waaye ni mu wóore woon ak yu rafet li mu doon def ci njaay mi ak li nga xamante ni gis na ko ci jikkoom moo tax mu doylu woon ko ba mën a proposer ko mariage boobu ndax moom moo ci moom la déclenché woo proposition bi moo ko proposé pour yonent bi sallallahu alayhi jël ko comme soxna ndax jikko yi rafet yi mu gis ci moom kon loolu tamit dañ ko war a xam ne lu lu mën a nekk la lu meuna nek la jigen meuna gis gor ci mom ay jikko yo xamantene dina xalat ni ki suma bu jele dina ma buma amé ak mom dom njabot gi dina nek ño xamantene ñu yor jikko rafet la ñu ndax bay bu bax la bay bu am jikko rafet la koku jigen meuna proposer pour lool meuna nek kon lool ñu xamne tamit lu meuna nek la mag tamit sa soxna meuna la mag tamit ñu bay ci xel ni lu meuna nek la tamit ndax exemple yonent bi sallallahu alayhi wasallam doy nañ fofu ya hadija nekkon ko xamanteni commerçante la woon bu bare xaalis bare woon na xaalis nekkoon na aussi koo xamante ni ci waa Quraysh la bokk ci ña a gën a nekk noobu lu Màkka ci la bokkoon waaye yooyu yëpp terewul woon mu gis Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu dooleem demewul woon noonu waaye duggoon na ci kon xeebaate moom dugalu ko ci xeebaate nekk na loo xamante ni lu mu xeebo lu mu tegoon fële la àddina jiitalu ko woon moom suñu yaay Xadija mu nek ko xamanteni tamit jigen ju taru la won ma sha allah jigen jo xamanteni ju rafet la won mom suñu yaay khadija batay suñu yaay khadija mom suñu dom yi nga xamanteni ni suñu yonent sallallahu alaihi wasallam yep amna ko ndax amna juróom-ñaari dom mo jur juroom ben yep ba mu dess Ibrahim Ibrahim rek le Maria jur jur moy ben esclave bo xamanteni moko jur waye ñi ci dess ñëpp siis yep yàlla def na suñu yaay khadija mom moy ki nga xamanteni mom mo len jur mu nekkoon koo xamante ni nag ku jàppale yonent bi sallallahu alayhi comme ni ma ko waxee woon parce que yonent bi sallallahu alayhi keroog ba wax yóbbu di wàcc ci moom nga xamante ni jaaxle na tiit na ci grotte ba mu nekkoon am na lu ko metti ndax xamul li ko feeñu lan la mooy ba Jibril ñëwee xamul li ko feeñu lan la mu jaaxle lool sax di lox tiit di lox di lox ba ba mu dawee ba egsi ca biir kër ga yaay Xadija mooy ki nga xamante ni mooy ci ko yaay Xadija mooy ki nga xamante ni mooy ki ko dalal ndax boobu moom bu doon jigéen ju mel ni man boo daw see nga xam ne bés bu nekk nga xëy dem nekk ci àll ba ci sa grotte ba saa yu la neexee guddi nga ñëw nekk fa di wéet ba saa yu la neexee nga ñëw bu doon man la duma xalaat sax fan nga nekk boo ñëwee rek saa yoo ñëwee ma indi la problème dangaa mën a dox foo nekkoon doo yendal doo fanaanal kon bu la loolu dalee boo ñëwee ma ne la euh, xamoon naa ko lii de bertu woon ku dul yendal du fanaanal lu la lu dina la dal ci mbedd mi bu doon keneen nit boo moytuwul mu def noonu waaye yaay Xadija ci dalam ak ci teeyam daf ko dëfal dëfal ko dalal ka daan ni ko lii xaw ma lu mu doon de waaye lu baax rek la mën a doon ndax yow lu bon du la dal di ko tagg di ko tagg yow ku baax nga yow ku bëgg mbokk nga yow kuy dimbali njirim nga yow kuy dimbali miskin nga yow kuy ku kuy defar relation familiale nga yow ku bëgg sa njaboot nga yow kuy nangam nangam di ko limal di ko limal di ko defal di ko defal ba yant bi sallallahu alayhi wa sallam dal mu di ko defal ba mu dal jigéen noonu lay def day defal soxnaam dafa war a roy yaay Xadija ci loolu di defal borom këram ci njàqare di defal borom këram ci tiis di defal borom këram ci problème bu mënti am waaye ñun li ñuy gis fii mooy suñu borom kër bu ñu demee liggéey ba ñëw coono ba ñu daj ci seen fa liggéeyukaay yi mën nga fa ah, jote kenn mën nga fa liggéey liggéey bu metti ba coono boobu jàppale lu ne mën na la fa dal boo egsee guddee wala nga egsi ak sa mer au lieu ñu defal la dañ lay gën a euh, yokk ba mooy indi ay problème ak ay wax yu kenn xamul ndax dañ la naan foo nekkoon ba guddee da nga doon taxawaalu danga nga jàddoon dinañ la wax lu nekk dinañ la ko wax ah feebaragoo sax da ngay door boo xëyee ci kër ga bala nga fay dugg heure sàngam lu ne dinañ la ko wax ba yokk la problème بكر جبوا ما يتقول متس نخول نكسوني سو ياي جدي ياي خديجة نوراي كتير لول نخلول لك يا رب سبحانه وتعالى سنت نخ يا الله مني وقت بين عين بعد أنزل بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون برب سبحانه وتعالى نين بكونتي أي كيمانم أي كيمانم بكونتي mu bind ci yéen góor ñi seeni soxna mu jël góor bind ci yée bind ci moom soxnaam nee na ndax lan li tas ku taskunu ilayha ndax ngeen am tranquillité ci ñoom tranquillité na boobu nga xamante ni moom la yàlla def muy tranquillité boobu jigéen góor mu ngi ko mën a amee ci góor loolu yàlla subhanahu wa taala leeral foofu mu def nag nee seen diggante cofeel ak yërmande nee na lii nag képp koo xamante ni am nga xel képp koo xam ne yaa ngi fàttaliku yow loolu eh, eh, yàlla subhanahu wa taala nee na ay kéemaan la yoo xam ne pour kii ñiy fàttaliku ñi nga xamante ni gëm nañu yàlla ak ñuy fàttaliku loolu la yàlla tegal ay ay yooyu pour mu leer kon loolu dañ ko war a xam jigéen yàlla subhanahu wa bu ko booleek ak góor pour mu dalal ko la pour mu defal ko la am fa cofeel am fa yërmande seen diggante. ñoom ñaar ku ne di defal di yërëm moroomam ku ne bëgg moroomam ndaw si di defal borom këram ci li mu mënti doon ci coono bu mu wàcc indaale mu di ko defal kon yaa Xadija noonu la defoon nag suñu yeneen sallallahu alayhi wa sallam moo tax li mu am tamit mu am ko ndax yaa koo xamante ni li ñuy wut ñun jigéen ñi nga xamante ni fii rangel moom daf ñoo sonal yaay Aïcha mi nga xamante ni moo doon soxna bi nga xam ne moom la suñu yeneen sallallahu alayhi wa jël mu nekk xale moom kese la jël ci ndaw ñi ci des ñëpp soit sëyoon nga fii wala nga sëy fële wala mais yaa Aïcha rek la jël ci jànq nga xamante ni mënoon na nekk koo xamante ni dina ko teg foo xam ne tegu fa keneen waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëggoon na suñu yaay Xadija bëgg goo xamante ni keroog ba yaa Aïcha fiira fiiree yaay Xadija te fekkanteewul ak moom ndax su yonent bi sallallahu alayhi wa sallam toujours mi ngi tudd yaay Xadija ba mu defee nii ba ma jàppalee ba mu nàngamee ba ci bu ñu reyee gàtt sax ci kër gi mo xam lu nu meunti ray ban gàtt day dindi walu xaritu yi yaay xadija yi ni nañ len jox seeni wal ya khadija ya aisha nak daf ci daan fiir ndax jigen dafa fiir léegi nak bam ko waxe yonent bi sallallahu alaihi wasallam ben jour ni ko ndax yow do fàtte ki sa màgget bi xana do ko fàtte yonent bi sallallahu alaihi wasallam ya khadija ne ya aisha ne na keroog ñëg gi ma gis ak mer gi ma gis ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam sallam la ko njëkk gis ci mom musuma ko gis ci mom nee na dafa changer kanama mer ndax lim ko wax nee na mu daal di toog ba dal daan ni ko sama ndaw soosu ngay wax daf ma jàppale ba ma kenn jàppalewul dimbali ma ba ma kenn dimbaliwul ci lépp nag dimbali alal dimbali doole dimbali lépp daf ma jàppale ci côté yépp te nag sama ndaw soos daf ma jural samay doom yoo xamante ni kenn juralu ma ko comme ni ma ko waxee six doom yépp moom moo leen jur kon loolu defe naa ni sag la ci yaay Xadija bo xamanteni jigen bu nek ñaan nga ko yàlla sa borom keur sa kanamu benen naw la jigen mu dila tag yoy tag tagg subhanahu ya yonnati bi sallallahu alayhi wasallam def nako ci yaay khadija tag nako ci kanam ya aisha tag yo xamanteni ya aisha neena nee na ba mu paree ca laa gëj a yaay Xadija di ci wax naan ko do sey màgget bi wala sa ki keroog la mës gëjë a génne sama gémmiñ lu mel non kon loolu day wone yaay khadija fu mu fété woon yonnati bi sallallahu alayhi wasallam lu fu reey la fa mu la mu jàppale yonent bi sallallahu alayhi wasallam kenn jàppalewu ko te ba mu ñëwee tamit mooy ki ko njëkk a gëm moom mooy ki ko dalal nangu li mu indi nangu ni lii lu am la ndax nee na ko yow doo wax mukk lu dul dëgg loo wax rek dëgg la doo wax mukk lu dul dëgg nangu la mu indi gëm ko jàppale ko ci aussi moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañuy nettali ci benn xadis ñu ñuy wax ni xata rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fil ardi arbaa xutuutin suma xaala تدرون ما هذا خالو الله ورسوله أعلم خالة أفضل النساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد فاطمة بنت محمد ومريم ابنة عمران وآسية بنت مزامهم امرة فرعون yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa mës a rëdd ci suuf ñeenti rëdd jël baaraamam rëdd ñeenti rëdd daal ndax xam ngeen li may li trait yi ma defar nii lan la mu ne leen ndax ñeenti trait yi xam ngeen lan la ñu ne ko yàlla subhanahu wa taala ak tam ñoo xam yonent bi sallallahu alayhi wa ni leen lii mooy ñenti jigéen yi nga xamante ni ñoom ñooy nekk reen yi keroog ci aljana ñeenti jigéen yi nga xamante ni ñooy reenu aljana yi ñooy eh, sang ya ci aljana ñoom laa dessiné nii ñoom laa rëdd nii kim ci jiital mooy xadijatu mu ne kii xadijatu bintu xuwaylid ak fatimatu bintu Muhammad Fatima mooy doomam Fatimatu bint Muhammad mu ne ak Maryaama ibnatu Imran mooy yaayu suñu yonent yàlla Isa jigéen ji nga xamante ni moo sàmmoon boppam téye boppam ba yàlla jaarale ci yonent yàlla Isa ñeenteel bi mooy Asiyatu bintu Musaahim imratu na mooy Asiya mi nga xamante ni moo doon jabaru na mi nga xamante ni lu mu deful ci lu ñaaw amul na mi nga xamante ni lu mu yàqul amul te am jigéen joo xamante ni ju gëm yàlla la woon jigéen joo xamante ni jabaram la woon waaye topp si eh, eh, yonent yàlla Moussa gëm yàlla jaar fi nga xamante ni fa la ko yonent yonent yàlla Moussa jaarale woon moom itamit ci jigéenu àjjana yooyu la bokk kon kim ci jiital mooy suñu yaay Xadija loolu tamit rëy na te foor na ndax ay jigéen lañu yàlla subhanahu yonent bi sallallahu alayhi wasallam tudd ni reenu àjjana def naa ne loolu rëy la ke ca yaay Xadija boobu nga xamante ni mo jàppale won yenen bi comme niñ ko waxe sallallahu alayhi wasallam motax it domam tamit Fatimatu bint Rasul buñ fi inde histoire tamit ku ne dina xamni liñu nan dom ja ndey ja lol la ndax momi tamit famu yaayam tegon tànkam fala tek tànkam setul won alalu adina jitalul won dara ci adina mom Fatimatu bint Rasul ndax mo ngi seyo nak ali ibn Abi Talib andi ali ibn Abi Talib di jarbaat di cousin wu yonent sallallahu alayhi wasallam mom loxom jotul won ginnawam noonu. te Fatima yeneen sërëm yi ñoo sëyoon ak ñoo xamante ni ñu am xaw a tane ndax Ousmane Ibn Affan moom moo doon gor moom tamit borom këru sërëm la woon moom amoon na waaye Fatima moom yàlla tombale ko ak Alioune bañ ba muy indi canam sax canam matul woon ndax yàlla yonent bi salaasam ba mu nee Alioune indi can yorewul woon can mu ne ko xanaa amuloo dara loo jaay indi yére wala dara boo jaay pour ñu joxe can bi mu dem indi benn mantoom boo xamante ni Ousmane mi nga xamante ni. jëkkëru sëram la moo jënd euh, mante bi ci 70 dirham mante boobu la jël jëndee ci ay tàndarmaak ay loo xamante ni moom la ñuy euh, def xéewal pour mariage bi waaye teewul Fatima nekk ci sëyam di jóg ko daanu ak boroom këram euh, lu mu am ak lu mu ñàkk yëpp mu nekk ak moom di jóg ko daanu ba ba yàlla def séparation ñëw ci ci génn àddina goo xamante ni génn ko àddina kon loolu tamit na ñu xam ko xam ne yonent bi sallallahu ni mu meloon ak. exemple yi fi joxe ay njabotam fofu la len tegoon soxnam biñu wax légui di khadija yaron na njabotam ay domam fiñu wara jaar jaar nañ fa euh yàlla def yàlla jël ko mom khadija tel ka jël ci génn gañu gennon dem ca montagne bañ len embargo yobul len ca montagne fa la genné àddina waye terewul lamu defon ci ay njabotam mom lañu yobalé ca Medina mom lañu ñu doon dundee